moom moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo wër si ba gis ma man xaw ma won kan la mais dafa tid moo ko amna ben am bo xamantene lo gaay da fay dem dikoy sék ak mom rek Mamou ci ñu dugg dem maître Sow yorna ben lini lii li yo xamantene maître Sow moko bind ci loxam numéro am jox mako dina la ko jox maître Sow ya maître Sow ñom ñep ñu wax si après ñu ñom ñu né même comme ça veut dire quoi est-ce que ay et tout ça Nous wax ne dama retourner wat li nga xamantene duñ ko def say ni déjà lor non c'est bien affaire bu grave ñoom ma demal pour ñu am sperme même nga nak loolu loolu nak gis nga loolu rek loolu nonu rek luñ ci après ma ce jour même jour j'ai appelé maître une semaine après maître m'a appelé pour me dire que le gars il est là mon na parce que ak ko na mais def dara dafa voilà. mais mais jour boobu si Mamour Diallo même moo ñu jox oto ñu dem ànd e, ak benn médecin dem seetawoo ci benn médecin bi def lii tout ça léegi nag gis nga gis nga loolu noonu ah ci pet ah ci man sama diggante ak yow. Mhm. ay millions la yoo xam ne yow sa compte lay nekk fii loo xam ne dañ koy téye. parce que déjà déjà demande par force. par force. par force parce que nous avons ñoo tax liggéeyatuñu moo tax nous ne la ngi sa ginnaaw au fait li ma lay wax ni sama papa sax sama kenn Nous avons ma. Nous kenn parce que xam confiance bi nga am papa wax wax lu déjà def confiance bi nga am ci man c'est-à-dire li nga mën wax ak man. li nga wax ak man wax ak kenn te dama lay confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam lu ñuy la rek voilà parce que nit une fois que mu am ku nekk ci wetam dimbale ko comprendre nga bu baax. Hmm. pas jamais dama lay dimbale jamais maa qui yow ba nga yow waxuma la dara dama lay téye. ba ni ñuy bien sûr pourquoi pas. pourquoi pas yow man maa lay jox cheikh ibrahima ñas déggoo lu ma la yow loolu bul sonn loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la ñun ñëpp

lu am na loo xam ne su fekkee ne doo dof da xam lu xew lépp dégg nga. waaw mu ngi noonu te lii xew lépp xam nañ ko waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi mënuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ne ay waxu neen la rek comprend nga. ba mhm. pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la gàddu corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko lu ko gën mhm. xam nga lu ma la nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa mën ko du uh-huh. nu ñuy def ba dem ci boobu ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus pour ah, ah. au cas où ma war de jël décision waaw ah, d'accord léegi man danaa xool oote ma euh, mhm. xool ko ban jour la ñu mën a recevoir ñu def ci gannaaw saalum la dégg nga ok incha allah parce que il faut que ma dem quand même waaw waaw nga xam ne mm, xaw ma li tuuti ci décision yi ma war a jël parce que il faut que ma jàmbaarloog ñoom franchement ah, waaw parce que parce qu'ils ils n'ont pas intérêt que ma wax ils n'ont pas intérêt ma wax waaw ñoom su ma waxee enrangé wu leen seen góor dafay daanu bu baax ils n'ont pas mort. morts. Donc, comme c'est ça, on va jouer maintenant carte sur table. mais moi ma bëgg yow nga ñëw nga tok xam naa ne wax ni ay mais ñoom mhm. bëgguñ nga wax moo ñu garder la te suñ xamee da a dégg mm. nuñ lay def mhm. dañ lay bëgg a liquider dañ lay parce que ñoom xam nañ fu nekk ni bis boo waxee mhm. tas àdduna mhm. yaa ngi dégg damay toog waaw man parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence presse dafa benn kilifa lañ am ñu ngi koy déglu man nii lay wax. sama papa woon na ma xamante ne ko loolu na ma. waaw donc léegi nag ñoom Me El Hadji Diouf ak ñooñu du mhm. leen aaraay parce que Me El Hadji affaire am mu ngi ciy baax. waaw oui ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñoom ñëpp ku si takk képp ku si takk sa affaire mu ngi baax sincèrement. xam na ne moom Me El Hadji Diouf xam na ne lim nekk yëpp ay fen la mu ne xaaral léegi may may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi koy jox ñu ngi koy jox xaalis. moo tax mu ne léegi nag nday mbili gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la topp lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox. allo ma ne. Mm. xam nga. xam nga yàlla moom tey su doon wàccee mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk de ah ndax man nekk na complice ak yow toog xam te noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugal yàlla moom kenn xamut du jeex loolu mais Euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo pexe ko loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la wax loolu araam na wala araamul man muy doomu sëriñ te jàng kay xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar ne àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yowmal qiyaam kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal gudul jeex la xolo imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci musa teggi sa loxo da ko ci teg te safara si ngay gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira mhm. sëpp nañ ko ci juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar téeméer mooy mooy set mm, mm, déedéet bul tiit arxo baax na nag léegi-léegi nga jàng ñu jàngal la ci mbiru yàlla parce que xam nga nit doomu aadama day nekk ci àddina te du jàng du jàng yàlla su jàngee yàlla nag ñu koy wax ci yàlla dana am lu bëri loo xam ne dina ci bàyyi xelam mais nag yàlla borom yërmande la minta Gari daaja eh lolou moy problème yow mi nday mbili gi nga xam yow ya yow ya waral ciowlu li ñu xam ciowlu coow yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards hmm. dañ la ko war a jox aji déjà tay dina len tita parce que euh, je, je retourne vers euh, François Hélène Gueye pour hmm. lui dire que de euh, samedi suba inshallah allah dañu def live waaw légui nak man des révélations yaa ngi dégg waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da ngay toog ne leen damaa bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à main yaa ngi dégg mhm. soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay këyit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax dafay nekk mu nekk foofu mais ñoom man xam na xam na xam na xam na xam naa leen ay fenkat la ñoom ñëpp te ñoom ñëpp laa xam ñoom ñu ku nekk teg naa ak ñu ak yow. Mm-hmm. ñoom ñëpp laa xam et non pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko. voilà ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoola attends dinaa photo benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. mu ngi noonu. suma suma suma ma su ma la ko waxee sax je vois pas mon croire. dégg ñii di ay doomaraam moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara dof la et tout ça te xamuñu lépp lu ñuy def xam naa ko. dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqari dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg. terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille. attends attends moi je moi xa euh, ces xaw ma ay nitu lan lañu. quand un ordre manifestement illégal il faut désobéir loolu la yoon wax.